salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu bonen jéggal xadiisu tay bi dafay wax an ibni umara radiallahu anhuma qaal farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri min ramadana saaan min tamr aw saaan min shaciirin ala alabdi walxur walzakari waluntha walsagiiri walkabiri min almuslimin muttafaqun alayh abdullah ibni omar radiallahu anhu dafa wax ci xadis bi ne bi sallallahu alayhi wa sallam moo farataal ñu ñuy tuddee zakat al fitri mooy azakay muurum koor bu ñu wooree ba wala wari loolu ñuy génne azaka googa loolu yonent bi moo ko farataal ci koo xam ne góor la wala jigéen la wala mag la wala ndaw mu génne ko bu na koy jox kam koy jox mooy miskin bi moo xam miskin bi gor la moo xam miskin bi jaam la moo xam miskin bi góor la moo xam miskin bi jigéen la wala xale wala mag la képp koo xam ni yitte woona rek kooku mën nañ ko jox azako jooja ko defee mu jëfandikoo ko boo gisul koo jox nga yóbbu ko ci kër imam bu fekkoon ne dawla islam yi la maanaam état boo xam ne ñuy attewoo islam la am ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ñi nga xamante ne ñoom ñi ñooy ñooy ñooy garde azaka ji maanaam baytul awqaaf wala ñi nga xamante ne ñooy saytu wàllu azaka di ko dajale di ko séddale miskin yi comme loolu amul dañ koy yóbbu ci kër imam yi rek kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa ji ñooy njiite diine ko defee ñoom ñu seen ñu xool miskin yi ñu séddale leen ko wala miskin yi ñëw fa jël si ko waaw defe naa loolu moo gën a gaaw ci képp koo xam ni amul xamul ku mu ko jox na ko yóbbu foofa te mu jàpp ne kim koy jox dina ko séddale comme niñ ko waxee rek bu dee bu dee li muy génn mooy bele wala mu ñe bele nag dañ ciy dugal ceeb dugal ci dugub dugal ci mboq yëpp mën nañ ko génne azak waaye génne ko li gën a bari la ñuy dunde nag mooy gën mooy ceeb ndax yoo xam ne dafa doon loo xam ne ñëpp dinañ ko soxla ban jour lañ koy génne li ñu gën a sopp ci madhabul malikiya mooy mooy ñu génne ko ci jouru korite bi bu ñu demee bu ñu jullee fajar ba noppi balaa ñuy dem ci julleekaay bi di julli julli iid ñu génne azaka ji jox ko ñu ko soxla waxtu woowu ci lañ gën a so lañ ko gën a sopp bu ko defee ñi nga xam ne lañ koy jox te ñu aajowoo te amul lu ñu togg ñu mën a préparer wu am lu ñu jëfandikoo loolu mooy li ñu gën a sopp ci mazhabul malikiya ko loolu mooy azakay muuru koor mooy mottali koor ci lépp loo xam ni nekkoon na ci ay manquement ci ay rëq-rëq bokk na ci li koy jàng borom kër bu ko amee da koy génne day génneel ay doomam doom même ku judd ci bis bi sax dañ koy génneel azaka jooju liir yeeg ñëpp la ñuy génneel azaka yëpp koo xam ni yaa ko njaboote war na nga génneel ko azaka jooju yéene waale ko ci benn un kilo wala un kilo cinq ci ceeb nga euh, boole ko jox ko miskini wala nga jox ko faqiiri mooy ñi amul te mënuñu laaj wala ñi yóbbu ko ci daara yi nga xam ne soxla nañ ko daara yi bu ko defee ñoom mën nañ leen ko jox wala ñi ko aajowoo rek loolu moo mooy mooy zakatul fitri jullit yëpp nag la war nag loolu mooy tënk xadis bi yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ak jëfe te nangul ñu suñu koor yaahi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam may ñu ñu fekk ay ramadan yu baree baree baree bare ak mboolem jullit أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته